dëgg nga fi ñoo koo xamante ne man dañ maa fay pour ma pour may gérer ce qu'on appelle les répondeurs automatiques. boo ci boolee nag di yootu troisième mandat. dafay nekk ci une logique. qui ressemble plus à la dictature. Mhm. qu'à la démocratie. bu làmbul troisième mandat. yaakaaruma ni dina ko def. nit ñi tey xëyu giñ doon am amatuñ ko. dëkk bi ci tar la gën a jëm. ku bugg jubóog Macky rek ne ñun ñëpp ay libéraux la ñu ñoo bokk bàyyi Ablaye Wade nañ bàyyi Ablaye Wade. juróom-ñetti at. mu ne man damaa bëgg ngeen jox ma réew mi. ma defar ko ci bii boor defar ko ci bee boor. la mu waxoon Sénégalais yi defar ko. kon président na bu baax a baax a baax lu muy wax dëppawul kilifa la am ci Sénégal. muy kan Macron. ci àddina bi Macron quoi. Macron bu dee senegal jabaram mooy kilifa amul beneen. jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñu am mbégte ñu leen koy defalee. ça su directeur de cette émission autour du micro euh, tey nag euh, autour du micro mi ngi fas yéene waxtaanee wàllu njàng mi mais rawatina lu bees muy mébét bu nguuru Sénégal am ne lu tollu ci trente milliards dina ko bëgg a ci ay tenues scolaires de ngeen coow ci loolu ñu dalal fi Cheikh Mbow bu COSYDEP COSYDEP mooy coalition des organisations en synergie

nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñi seetaan di ñaan borom bi leeral suñuy xel ba lépp lu ñuy wax rek nekk luy jariñ askan wi. jërëjëf Cheikh premièrement appréciation globale ban lañ mën def ci njàngum Sénégal ginnaaw li ñu dund ni mbas mi ba léegi jeexagul ñu koy dund moo am impact parce que daaw tëjoon nañ école yeeg euh, ban appréciation nga ci am. Oui, appréciation euh, globale le système éducatif est un système paradoxal au Sénégal paradoxal parce que yow nee nga yow yaay rew mi nga en termes de kangam et ressources humaines am nga ci et pourtant tout le temps système bi en crise paradoxal parce que li ngay def ci xaliss 541 milliards 26,5% rew et pourtant ces résultats du top. paradoxal parce que am nga crise de finalité actuellement am nga askan yo xamni am na nu ñu l'école te xam nga l'école dafa wara tontu bëgg-bëgg ñu ko ba légui dañu japp ni école française la ñu ñëw au Sénégal paradoxal par rapport à crise des contenus tu as des références des valeurs ñi nga xamni dañu bëgg ñu mettre leen en avant Cheikh Ahmadou Bamba. Hmm. nit ñu baax ñi fi ne. mais ba légui place bi ñu wara occuper ba suñu culture ñu gis ko suñu éducation dafa nekk lo xamni dafa dess paradoxal parce que justement il y a une crise de confiance moy waral.

yoo xam ni évidemment système éducatif bi moom la jàkkaarloo maintenant boo ñëwee teg ci mbas bi day wane ñu suñu système éducatif amul li ñu tuddee résilience maanaam wéeruwaay boo xam ni lu ñëw du ko daan xam nga mbas bi bu ñëwee bett ñu ci première vague daan ñu xel mën na ko nangu parce que lu la bett mën la waaye bu ñëwaatee deuxième vague daan li mu la daanee woon ñoo ngi jëm si troisième vague te école yow bi ne bi sa doom di jàngee avant mbas bi ni fa ne ni mu meloon ba léegi noonu la mel bu fekkee école bi amul woon ndox xel nangu won na heure bi ngay lijjanti lan ngay def ba am ndox bu fekkee am woon gànnuwaay nga ne ah puisque mbas ñëw na xel nangu woon na heure bi ngay gis ay nit di dugg ci l'école di fa jaabante pour utal ko gànnuwaay et cetera et cetera donc c'est un système bu bëri paradoxe moo waral euh, ñu war a ñu war ci jóg parce que man gëm naa ni ñun sénégalais yi ñoo gën a intelligent problème yi ñu am hmm. il faut simplement qu'il y ait une détermination pour que ñu mën leen a daan mais impacté na ci niveau élèves yi parce que ku doon jàng 9 mois

ay tontu yu matul ndax indil na tontu élèves yu nekkoon candidat 3 na trois millions cinq cent candidat mm-hmm. indil na tontu ñëpp ñi télévision am ressource numérique waddi na ñi nga xam amuñu courant am nañ ay jafe-jafe indil na tontu ñenn ñi ñi si des kon loolu boo ko amee moom waral justement que feebar boobu dal trois millions yi nga cinq six mois te dugguñu l'école évidemment que il faut ñu yëg il faut ñu yëg ko il faut ñu yëg ko déwén parce que justement ñëpp xam nañ ni njàng kenn du ko amee ci benn niveau yow li nga xam da nga koo cumuler mais bu nekkee doo jëlee baccalauréat baccalauréat kenn du ko amee terminal BFM kenn du ko amee troisième CFE kenn du ko amee CM2 c'est un processus boo xam day jël euh, tout le niveau tout le système donc bu fekkee am na ci fenn formé amee gàllankoor day am jafe-jafe donc aujourd'hui ñun li ñu gëm ko si def mooy bu amee jafe-jafe tont bi dafa war a gën a dut baaraam si ñi ëpp jafe-jafe moy mm-hmm. les plus vulnérables mm-hmm. mais bu fekkee tontu bi day indil tontu doomu pap Alé wala doomu Cheikh Mbow amul lu njariñ parce que dans tous les cas yow ak man mm-hmm. am nañ ñaar dërëm yoo xam ne bu jafe-jafe amee danañ ko toppatoo suñuy doom yow ak man am nañ télévision ñun sax xëy na jàng nañ ba mën nañoo toppatoo suñu doom mais booy indi tontu da nga war a xool ñi gën a ndóol ñi nga xam ne seen waajur jànguñu nekk ci gox goxaat yi nekk jigéen am handicap ñooñu tontu boo indi boo xam ne laalu leen rek évidemment que dafay indi ay jafe-jafe te ci biir mbas mi li ñu seetlu mooy réponse yi am yëpp wax dëgg yàlla laarul les plus vulnérables réponse yi am yëpp laarul ñi nga xam ni ñoom ñoo ko gën a soxla parce que ay télévision lan lay wax internet lan lay wax ressources numériques lan lay wax euh, voilà véritablement moo waral ñu jàpp ni ñun li ñuy jiital en tout cas ku si dem li ko tax a jóg du sa doom du sama doom mais doomu ñi nga xam ni ñi gën a jafe-jafe parce que école dafa war nekk ascenseur social hmm. le président de la république daf ñu koy wax chaque jour mu fàttali ñu moom dafa jóge ci famille bu modeste donc bu du woon école du jaar ci escalier boobu ba mën a tekki donc il faut ñu may chance ñi tax yow nga mëna nga mëna bind mëna lire mëna a moom sa bop dama koy fatali kenn si amul wajur boo xam mëna tabax école yi bu jaar yépp kenn si amul wajur bu mëna défar table ba yi nga toog yëpp. kenn si amul wajur bu mëna fay jàngalekat kat bu jàngal yépp il a fallu ñu bari cotiser y compris ñu jàngul pour yow nga mëna am xam-xam donc ko amé xam-xam motax nak nag d'ailleurs su ma sax ku jàng yaakaar ni mo mën ñëpp di yëkati mbagg dama nan ki amul xam-xam parce que am xam-xam da fay humble ki am xam-xam dafay jóg pour xeexal ñi nga xam ni euh, nekkuñu si njàng mi amuñu amuñu xam-xam parce que ñooñu ñoo ko cotiser ba moom mu mën a doon ci li mu doon donc boo jëlee tey nga jël un million cinq cent mille enfants hors école ñu mësul dugg ci benn école nekkuñu si daara nekkuñu suñu école formelle yi nekkuñu si atelier man chaque jour loolu dafay metti suma xol ma jàpp ni 2021 xel nangutul que Sénégal mu am benn doom kese boo xam ne mënul lire mënul bind ci ci lenn mënu ko ci arab mënu ko ci français mënu ko ci chinois mënu ko ci wolof donc loolu moo waral évidemment ñu jàpp ni euh, question de éducation daal dañ ci war am une vision humaniste affaire bu ñett la war a doon te ñu xam ni aussi même ñun suñu sécurité dafa nekk si njàng wu ñeneen parce que boo nekkee ci réew moo xam da ngaa bëri ñu fi nekk te jànguñu amuñu xam-xam ñoom dañuy nekk en insécurité dana des dañuy nekk en insécurité mais yow aussi sax mën na impact ci yow donc tey booy xool jafe-jafe yi am lu ci ëpp dafay nekk ñoo xam ni dañuy am manquement donc yenn saa yi ma dégg ay débat ci affaire élection yenn say yi ma dégg ay débat ci ay question wu droit loolu yëpp li koy waral mooy ñàkk jàng bi ak ñàkk xam-xam bi moom moo koy indi maintenant bu ñuy wax jàng nag bu ñu jàpp mukk ni jàng yem na kese ci école tubaab bi jàng gën na ko yaatu donc loolu moo waral parce que mbedd bi sax fay jàngee donc il faut ñu am dispositif boo xam ne du ñu bedd kenn moo waral daal du jàpp ni mbas bi mu ñëwee euh, tontu yi ñu ci indi ndam baax na ñun ñu saluer ko parce que gunge nañ tontu yi ñun ko si dem mm-hmm. assumé nañu si vous avez correctement chaque fois y alternative document pour l'éducation face à la Covid ministre de nous consulter à tout moment Nous avons suñu nous mais décider mais ce ko incomplète parce que dafa bëri ñu mu waaw poser la question boo xam polémique dañoo gis muy BFM taux de réussite yu malgré mbas c'est fictif, ce n'est pas la réalité. Est-ce que vous avez le taux de réussite Oui, vous savez, ce que j'ai fustigé, c'est que les Sénégalais, ce qu'ils font sur taux de réussite, c'est que j'ai pris le taux de réussite du Macla. Papa, la France, avec les pays que je connais, ils ont fait une grève, parce qu'ils ont 80%. Nous, si nous avons 50%, 40%, nous voulons faire. Vous savez ce que c'est 50%, 40% Si vous prenez les enfants, il y a des enfants qui ont des enfants, il y a des enfants qui ont des donc dañoo war a xeep li ñu am daaw résultat yi ñu am moo gën résultat yi ñu am at yi weesu mais taxul mu baax baaxul woon mais li ko waral ñëpp xam nañ ko mën gëm naa ko parce que li ko waral nit ñi xam nañ ko. li ko waral ñeent mbir la à notre avis bu njëkk bi mooy dañoo jël wàññi classe yi effectif yi nekk benn jàngalekat ñaar fukki élèves. Hmm. kon nag yow da nga mën a téye xale loxo xale bi gën a yéex. comprendre rapproché rapproché. ça veut dire que am na koo xam ni da ngeen dem sax si nopp bi da nga koo déy. ko xamni da nga mëna a téye bigam pour bungé ko té biñu nekké 100 ak 150 classe bi ngay jangal mais do jangal élève yi mm-hmm. mais buñu nekké 20 mën nga jangal élève bu dé kon lolu tax na daaw résultat am mm-hmm. te bu gën té xel mën na ko nangu scientifiquement mën nañ ko mën nañ nangul lolu mën na baaxal résultat parce que dëkk yi am résultat yu baax yépp ay effectif 15 ak 20 25 la am mm-hmm. kon nak lolu nak buñ ci amone dégg-dégg dañ nan désormais danañ am benn politique buy wañi suñu effectif classe parce que ndekete effectif classe yi amna impact sur résultat yi benn ñaaral bi ko waral daaw mooy dañoo jël jàngalekat yépp ñu sot parce que wax avons ko sànq jël 3 500 000 enfants yi nous leen bu leen ñëw. mais seen classe bu ne buy def examen ñu jël fa ñett ba ñeent jàngalekat ñu sot xale yi xam nga ça veut dire que bu nekkee yu doy face ak xale yi résultat mën na bi mooy communauté bi ñun ñëpp dañoo mujj nekk ay jàngalekat kër puisque ñun ñëpp dañoo confiné woon boo toggee ci kër nga occasion di wax ak di di di waxtaan ak moom ci film bi jàll di di di di discuter ak moom ci documentaire tel yenn saa nga jël bigam donc jot bi ñu am ba communauté bi accompagner ko bokk na ci li taxoon résultat yi am moo waral ñu jàpp ni njàng du seulement les quatre murs. Mm-hmm. mais il faut moom prolongement donc ñun waajur aussi am nañ responsabilité rarement bu ñu nekkee suñu tënjëx tënjëx am nañ dañuy am jot pour xool suñuy doom lanuñ jàng man maam moo ma yar mam bi ma yar tok na lu yag yakar ni dafa jangone ba sori nekata te jàngu dara sa mam sa maam farma yalla nako yalla yàlla mm-hmm. bu ñewé danañ ma réciter sama son sumay wax di këkk këkk mune ma dama jàngiwaat def naa 2 ou 3 ans bala may xamni sama mam mi jangul donc suivi bobu di am euh, à domicile nek na lo xamni aussi euh, am na impact ci ci résultat yi nga xamni amon nañ ko donc euh, programme bi aussi daw dañ ko wañi won uh-huh. biñu xamé ni waxtu wiñ jang jàng na ñu wañi ko xamni xam nga ñun dañu yag di casse liñu tuddé encyclopédisme manam sénégalais dañ leen doon sol ba di leen jangal luñu soxla ak luñu soxla donc bañ na sax ba feeñ ne culture générale xam nga le sénégalais amul ko gën a cultivé Pape Alé tey wóor na ma bu jàkkaarloog benn journaliste américain wala bu russe doo moromam ci culture générale boko waxone waxoon ban dëkk laa nekk nga ne ko sénégal xam sax fu sénégal féete ah, ah, afrique loolu la ma doon donc ñun def na defon nañ encyclopédisme bo xamni daw mbass bi yóbbu nañu si ñu wañi waxtu wi xalé yi doon jàng donc wañi waxtu wi hum, hum. communauté bi sot euh, enseignant yépp ñëw nek ci candidat yi effectif classe yi ko lolu mën na expliquer résultat yi am donc man gëm na ni résultat yi ñu ndaw daaw résultat yi bax la mais gëm na ni am na lu expliquer ba fay résultat yi mais lolu ko expliquer nak lolu lañu maintenir ba pour mën am résultat yu bax ren. waaw alors Cheikh bo moy sama ganté ji autour du micro ñu dugg ci Ali Kalaj ji dañu xey rek <laughs> dégg né gouvernement bi mi ngi mébét jël lu tollu ci 30 milliards pour dugal ko ci li nga xamné modi ay tenues. ba nga déggee xibaar boobu yow lan la la def. ñun ñoo ko njëkk bokk nañ si ñu ko njëkk yëkkati parce que ñu ngi ko déggee ci conseil présidentiel bu avril bi mooy xam nga coow li fi amoon Sénégal ci mars. Mm-hmm. président ne dafay waxtaan ci affaire emploi ak insertion fa la jëlee décision ne dafay sol utal xale yi ay mbubb ñu nduróole ko dénk ko ministère de l' éducation ak ministère artisanat mu nekk 10 milliards si lañ génnee ñun def ci sotti bu rëy mais sotti bi yow sa mbokk presse bi. wax deug yalla jamono joju ñi ko traité ben ak ñaar la je crois son xaw ma ndax mën naa tudd tur presse ou pas le quotidien moko xawa traité ñi ses ñep xaw ko mais actuellement lañu jek jek rek ben gaay yi affaire bi pikir na leen ba ku nekk tit jog de ah wa mais liko su def waxon la fan nañ ci toll mbub yi nga xamni mom lañu bëgg jëndal xalé yi lan mo ci suñu gis-gis bu njëkk bi moy ñu fatali di ciowli pour ñun nekkul ndax and nañ am déet ci ay tenue scolaire ciowli pour ñun nekkul importance tenue scolaire ndax ñun xam nañ lan mooy njariñu tenue scolaire xam nañ tenue scolaire bokk na ci li li nga xam ne dafay accompagner xale yi ba ba yenn yenn yenn disparité yi euh, du mën a feeñ bien que sax li may tàmm di wax gars yi naa leen tenue Pape Alé tenue du réduire disparité hmm. mais dafay cacher ay disparité absolument parce que ki nga xam ni euh, day dox 10 kilomètres mu sol tenue ñàkk sul tenue 10 kilomètres dana ko dox ki nga xam ni amul lu mu ndekkee boo amul benn programme alimentation

donc tenue am na solo à tout point de vue mais ñun question bi nous posons du solo waay bi xam nga la may suñu question. Hmm. priorité. opportunité opportunité à priorité Si vous programme bi nga xam ni gouvernement bi bind. ci une tenue scolaire programme de national de dotation des établissements en tenue scolaire. Hmm. nga jàngat programme bi. premier mot ba dernier mot ci kaw ba ci suuf amul fenn foo xam ni évoqué nañ fa contexte Covid pap pap jàng nga jàng naa dañ doon bind di bind. mënuloo en 2021 mille vingt et ngay def benn programme bu ignorer le contexte Covid. loolu mooy premier problème. programme bi xamoo Covid bi sax kañ lay jeex. xamoo kañ lay jeex te yaa ngi koy dund non seulement yaa ngi koy dund mais. troisième vague jafe-jafe mais troisième vague sax daf na la bàyyeetul xale ak mag xam nga mu njëkk ñox ñu wax ni mag ñi kese la woon. donc war nga am yitte ci loolu. donc contexte bi amul fenn foo xam ni wax nañ fi mbirum tenue mu nekk mbir moo xam daf ñoo yéem euh, mbirum contexte euh, pandémie Covid mu nekk mbir moo xam daf ñoo yéem loolu mooy première chose bi nga xam ne mooy ci programme bi ñu ne kon léegi ñun problème priorité la ñuy posé parce que bu fekkee nit ñi doon nañ wax naan war nañoo fexe ba suñu école am ndox am gànnuwaay am sécurité parce que xam nga ni am na 40 pour cent des écoles yoo xam ni amuñu latrine boo jëlee fukk école ñeent yi amuñu latrine am na euh, deux tiers des écoles yu amul ndox bu ñu naan potable eau potable boo jëlee ñetti école hmm. ñaar ya am nañ problème ndox am na une école sur deux bu am problème de sécurité manam tëju ba nga xamni te yooyu yëpp ay question am gardien am sécurité te lolou yep xam nga Covid daf ñuko deuy hmm. ñu ne bu fekke nek nga si jafé jafe ñun ñu laajte nan la fexé fexe ba saafara ko te bi Covid bi ñëwé ba léegi gisuñu mu am ay action yu jëm ci fi amul ndox ñu dafa ndox fi amul gànduwaay ñu dafa fa fi amul sécurité ñu yokk ko ñu ne nañ ci def xaliss nit ñi nañu xaliss amul loolu mo doon tontu bi nga jékki-jékki rek subitement xaliss am muy 30 milliards 10 milliards par an bu xaliss bobu amé dañ ne gouvernement bi nako jël yobuko ci priorité éducation ci bir priorité xeyna na toni bokk na ci waye du occuper place bi ci kaw japp nañu tay yi lepp lo xamni xam ne la injecté dañ ko war orienter orienté vers ce que nous appelle nous appelons nous les priorités et priorité bi wara a ci lepp moy lepp lu jëm ci tontu mbass mi parce que entre sa dom nga jox ko tenue scolaire ak nga garantir ah. santé ak sécurité je crois que parents boo offrir ñaar yoyu santé ak sécurité moy mooy li ko jiital moo ñu japp ni 30 milliards yoy 10 milliards par an dañ ko wara a ci lepp lu jëm ci art école bi art élèves yi art jangare jàngalekat yi d'autant que ya nga ci vacances ya nga ci 3e vague bo xamni ah, wa wa keur docteur nena dañu top ba octobre amna sax ñuy prédire 4e vague. Hmm. donc aujourd'hui buñu nekké ñu xamni dañuy xol suba ak gannaaw suba war nañoo set nan lañuy fexé ba art suñu l'école ba mu répondre aux normes. mais yaa ngi wax sax ay gaan way mais avant lolu sax. Euh, def nañ fi reportage sur les abris provisoires au passage ma lay gërëm bu baax a baax parce que ba moom nammee def reportage boobu sur les abris provisoires waxtaan naa ci yow nga jàpp ci bu baax a baax a baax a baax ne ma li nga def ni loolu la ñu war a def ñu génn ko ñëpp gis reportage bi mais xale bu sol ay tenue dugg ci abri provisoire logique. ça pose problème Pape xam nga reportage boobu maa ngi la ci sant aussi di la gërëm boo ma ci santee ma sant la ci yow de ah. ndax ñun aussi bokkoon na ci combat boo xam ne gëmoon nañ ko bëggoon am aussi ay ay journalistes d'investigation yu si intéressé dem naa sax ba ne la won nga defaat beneen reportage pour topp demaat fi nga demoon pour hmm. xool ndax am na évolution donc loolu dafa nekk suñu gëm-gëm xam nga tey bu nekkee comme ni nga ko waxee benn priorité ñun bi ñu teg mooy lépp lu jëm ci euh, crise sanitaire bi nu ñuy fexe ba suñu école hmm. mën a répondre ci norme d'hygiène assainissement sécurité hmm. loolu mooy pour ñun li jiitu ci jiitu parce que même abri provisoire am na benn programme bu ko war a faj. même bu euh, nekkee ni même bu nekkee waaw même bu fekkee di xaalis bi évidemment il y a beaucoup de questions. ak lenteur ci ci mise en œuvre bi mais surtout problème mu mbas mi la ñu jàpp ni lépp lu ñu am ci alal war nañ ko ci xëpp ci l'école bi pour que suñu école aaru répondre aux normes loolu mooy bu njëkk maintenant loolu bu tegoo à côté nag lépp lu jëm ci performance sànq sa première question moo doon suñu résultat baaxul Pape mais suñu résultat pour mu il faut nga adresser environnement des apprentissages lan environnement des apprentissages mooy abri provisoire yooyu xale bu nekkee ci école boo xam ni euh, mënoo fa jàng waxtu wu doy parce que day day yéex a defar abri yi ndax taw bi dafay teel a tëj ndax taw bi kooku du def résultat bu fekkee da nga nekk ci école boo xam ni jaan yi dañuy jàll euh, leneen di jàll xar di jàll amul benn sécurité mooy abri provisoire kooku bu doo fa def résultat bu fekkee da nga école boo xam ni euh, jàngalekat yi doyul sànq jox nañ valeur bi am na sax ay ay ay villages yoo xam dañoo tëj seen école simplement parce que amuñ jàngalekat élèves yi ñëw nañ inscrire au mois de mai mooy première inscription octobre jot ñu war a ñëw dugg ci classe ba ñu ne leen classe ba dañ koy tëj parce que amul jàngalekat donc am na la question des abris provisoires am coow li am ci euh, déficit enseignant bi am am déficit table banc bu am hein donc am am am plusieurs déficit quoi très très clair, yoo xam ne am na yoo xam ne tey boo amoon alal

ci ci askan bi donc loolu daal mooy suñu suñu woote ci fànn boobu ministre bi réagir ne xaw ma yéen lay wax xaw ma ñeneen ne vous n'êtes pas pédagogue ni acteur de l'école ma ne ah ko si def nag Mamadou Talla nag sincèrement parler nag euh, juum nga parce que man ko si def xam naa leen xam naa la parce que toog nañ émission décryptage syndicat yi ne duñ recevoir duñ dem wuy ji ministre bi ministre ne du leen recevoir ñu fexé ba ministre bi woote en direct ah ang koy koy ku ministre bu len suba bo la ñëw ma recevoir len ñu lever sen mo d'ordre. man yow ak Kanté la woon waaw loolu ma ngi koy fàttaliku comme demb comme demb donc bo ma waxé na ma duñ ay acteur te ñom ñi réunir syndicalistes ak yoyu mais ça t'a fait rire certainement. Ah, waaw bien sûr bien sûr xam nga yoyu yoyu da ngay japp ni xeyna kilifa gi parce que Talla suñu xarit la da ngay japp ni xeyna na dañoo. Euh, waxu ku mer la wala boog comme ni ko sama benn xarit waxee yenn saa yi boo amul argument te kiy wax li muy wax neexu la il faut nga trouver moyen boo ko xaw a boo ko xaw a wàññee comme on dit. waaw mais xam nga koo xam ne nii yow bi euh, ñoom bi ñu jëlee pouvoir bi te ñu waroon dem ci année blanche man maa dem jëlee ji Ibrahima Sall génne ko ci këram ba régler crise bi ba affaire bi féete boor koo xam ne nii bi ñuy def assises national livre blanc bi ñu ci defoon. Euh, bëri inspecteur yoo xam dañ ko def seen livre de chevet. koo xam ne nii mbirum éducation inclusive lu ñuy fexe ba jël xale yi am laago dugal leen ci l'école bi nga nangu seen i analyse koo xam ne nii bi crise mbas bi ñëwee ñaari fan ñett nga woo ko euh, muy bind ay document nga koy gëstu yow sa bopp nga wax ci publiquement que ni wax dëgg yàlla li ma trouvé comme solution yi lu ci ëpp maa ngi ko puiser ci biir euh, réflexion wu ko si def koo xam ne ni bi askan wi seen bopp reconnaître nañ sa valeur parce que ba limi wax gars yi naa la lépp solo mooy reconnaissance citoyenne. absolument kooku kooku mooy. lépp solo euh, am nga fi ay ràññee yu dul jeex donc kooku wax boobu bu amee da ngay jàpp ni. Euh, waxi ku mer la waxi ku mer la quoi mais xam nga ni mos ku si def moom li muy def bu dee pédagogie euh, amul kenn ko ci man wante nag li ma ci sax bëgg a wax surtout papale mooy nañ génnee suñu xel ni mbirum l'école pédagogique suñu ci war a wax suñu ngëm-ngëm mooy école de la communauté de bu nekkee ñuy am association de parents d'élèves cultivateur bi parent bi nga xam ni baykat la. Mhm. parent bi nekk tailleur. parent bi nga xam ni leneen la am na droit joxe xam-xam ak xalaatam ci mbirum l'école bi l'école xam nga ñan ñoo war a nekk ñan ñoo ko war a commandé ñan ñoo war a commandé ñun ñëpp dañu war a nekk au service des citoyens. Mhm. citoyens ñoom ñooy bénéficiaires ñoom ñooy war a commandé ñoo wax ban xale la ñu bëgg ñu ñu yaral leen donc il faut ñu am déglu bu yaatu. y compris je ne parle pas de conseil de pédagogue ou pas mais même bu ñu woon bu ñu woon ko ay pédagogue euh, système éducatif dafa laaj mom inclusion am une écoute stéréo comme disait l'autre stéréo nga déglu voix yépp loolu mooy waral nga mën décider donc loolu mooy benn ñaar booy seet tey ñi si wax dafa mel ni euh, ñoom ñëpp kat euh, ministre da leen di xaw da leen di wàññi dégg naa inspecteur Ibrahima Ndiaye mu soutenir li ñu wax nga dégg inspecteur Waror wax la même chose donc bëri na nga jël les secteurs généraux de syndicat ñoom ñëpp xanaa doon xamuñu école bi nga xool enseignants yi nekk ci classe bi ñoom ñëpp li ñuy wax benn la mooy ah naam tenu am na solo priorité donc sous cet angle là boo bëggee régler problème problèmes éducation tey ak Covid bi da nga soxla jël ay sociologue ay psychologue mhm. donc nous aussi doo wax ni nekkuñu ci école bi moom bi ci école et pourtant on suppose que xam li ci école mhm. donc wax boobu du lu ñuy metti ñun. bi na ma ak bu parce que en réalité bu fekkee yaa poser les véritables problèmes bu fekkee ni ki nga euh, posture objective moy ñu baña japp jàpp ni kuy wax rek dafa and au contre wala yoy dafa xewi mais mom il dit que c'est une directive du président manoko certes peut-être une directive du président mais buñ koy appliquer na méngoo contexte bi wa xam nga euh, fofu ñaari tontu la ci bëgg indi bu njëkk bi moy président dafa joxe ay directives yu bari pourquoi nga sélectionner bi directive rek ne da nga koy jëmmal président en 2015 dafa joxe directive ne dañoo war a fexe ba assises nationales yi nga xam ne moom la ñu defoon te ñu def ci 500 millions de nos francs mu am un comité multi acteur de suivi de ces assises directive la et pourtant jëmbaluñ ko président récemment boo xoolee conseil des ministres wax na ne ministre yi commencé di dajawaat ak jàngalekat yi pour monitoring yi. Mhm. directive la est-ce que jëmbal nañ ko. donc waaw directive président il faut nit ñi di ci góorgóorlu ñoom ministre mais nag bu ñu tànn ne bii directive la ñuy ak beneen bi loolu mooy première tontu bi deuxième tontu bi mooy même bu fekkee dafa am directive xam nga président ministère yi ñoom ñooy ay techniciens. mën na la jox directive boo xam ni bu fekkee am nga dégg-dégg bu yaatu déglu say acteur déglu say partenaire da delluwaat ci ki la yónni woon sa doom sax nga koy def. nga yónni ko dara mu ah, waxoon nga ma de waaye koñ bi fay kat ñoo fay sànni xeer kon mënatuma faa jaar donc yenn saa yi nga rendre compte quoi donc pour ñun euh, nañ jàpp rek ni liñ ciy wax teguñu ko lu suñu àqulaay taala hmm. jàpp nañ gëm nañ yaakaar nañ di fi ñu toll suñu xam-xam suñu doole suñu alal war nañ ko def ci fexe ba suñu école répondre aux normes

bu ñu wujjeeloo secteurs yi ñun li ñu mës gëm mooy vision holistique yow Pape Alé invité nga ma plusieurs fois ma lay jox exemple Japon ma hmm. ànd fa le professeur Bouba Diop su may déglu maa ngi koy nuyu bi ñu toogee ci cérémonie bi ñu ne on donne la parole au ministre de l'éducation de la formation de la culture et des sports maag Bouba Diop on se regarde ñu xoolante deux minutes kenn waxul Japon moo la ëpp nit moo la ëpp alal te xam nañ lan mooy vision holistique donc ñun dañoo gëm ni non seulement nous avons dem ci vision holistique mais le peu de secteurs bi existe dañu interagir parce que interrelation bi secteur qui nekk soutenir ce morom. Mhm. loolu ñun donc l'artisanat, il faut soutenir l'éducation. L'éducation il faut soutenir l'artisanat. Mhm. D'ailleurs, mais artisans yi dañ leen jàngal donc nous avons une éducation cette relation là est directement existée mais si nous def une fausse confusion parce que gis même la chambre de métier def benn sortie ñu ne une def ay précisions euh, Cheikh Mbow ko si quoi mais xam nga loolu dafay doy waar quoi bu ñu créer opposition ñun waxuñu qu'il faut pas soutenir l'artisanat mais dañu jàpp Pape Alé que bu fekkee da nga bëgg a faj problème mu benn secteur da ngay dugg ci problème mu secteur bi ça veut dire que dogane secteur bi loolu foofu ngay jaaree c'est-à-dire que mënuloo faj benn secteur di entrer par un autre secteur da ngay entrer ci secteur bi nga xool lan mooy jafe-jafe l'école bi école bi am na bii soxla bëgg nañu leen ko mbas mi table banc manqué na nga ne pour faj ko nag

nekkul ci biti mais entrée bi day nekk problème mu école bi. moom mooy nekk sa entrée nga seet yan lan nga ko war a indil saafara nga ne nag ñi war a indi saafara bi nag dama koy jëlee ci yeneen secteur mais c'est pas ñëw ne euh, voilà Sénégal créé na benn benn garab bu bees médicament bu bees euh, maintenant ñun ñëpp nañ ko war a naan ku ko ku feebar ko soxla ko soxla lañ ko naan donc mënoo ñëw imposer ne parce que dama bëgg a régler problème mu tailleur yi que par force dama ko war a jaarale ci école bi ñëpp am tenue déedéet da nga naan. bu fekkee système bi nangu na ni toni, moom mooy priorité am naa dem jëli ji tayul Sénégal bu fekkee ne système bi li mu identifié comme priorité ou défi moom mooy euh, masque moom mooy euh, table banc nga dem jëli ji artisanat local donc relation bi la ñu am donc daal bëgg naa wax suñu mbokk artisans yi que évidemment que ñun bu ñuy wax ne ay acteurs éducation lañ mais dañ ci am une vision large ce n'est pas seulement le niveau formel et puis une vision très large c'est-à-dire que du éducation c'est pas seulement école classique bi nga xam école CM xaw ma lan wala lycée Blaise Diagne mais feneen fu ñuy jàngee xam-xam te artisanat bokk l'éducation.. ci éducation donc nous on les défend mais on pense que booy régler question du secteur ci secteur bi ngay dugg seet jafe le secteur bi maintenant li koy solutionné nag beneen secteur mën na porter je sais pas si tu me comprends ça c'est un aspect deuxième aspect bi pour ñun mooy bu ñu naxante xam nga gouvernement bu bëggee régler artisanat soxlawul sax école pour régler ko ñaata ministère nga am ñaata agence nga am ñaata institution nga am ñaata homme de tenue ñu xamné officiellement ñom seen bop gis nga gis nga Burkina bi mu bëggee jox doole mbubbam yi président si boppam mooy sol mbubu Burkina yi hein buñu dem buñu dem conseil des ministres ñëpp moo la ñu sol donc buñ ko bëggé régler gouvernement bi sax mo gëna placer pour véritablement de par euh, des actions internes véritablement internes pour mu régler ces questions là donc buñu indi confusion ñun waxuñu ne il faut pas soutenir au contraire on pense qu'il faut soutenir mais on pense que bu fekkee ni tey jii dañuy ut saafara ci jafe-jafe bi école bi am. nañ dugg ci l'école bi waxtaan ak école bi seet jafe-jafe bi école bi am utal ko saafara maintenant saafara bi nag ku mu tombeel bu soxlaa saafara bi war a jaar ci sociologue nga def intervenir nga nga nga woo leen bu fekkee soxla na menuisier nga woo leen bu fekkee soxla na beneen euh, beneen beneen type de travail nga woo leen donc ñun loolu lañu gëm. waaw euh, Cheikh am na benn euh, question programme mu ministre bu mu soumettre nit ñi da nga xeeb pertinence am gëmul programme. wa xam nga programme bi euh, man bëgguma sax di yag parce que xam nga yag ci sax euh jëm ko jubanti ba ñu mëna def tenue scolaire. Hmm. or man lima jittel moy mooy wane ni tenue scolaire nam amna solo mais du priorité mais même bu nekkon nekkon nañ période bo xamni ni tenue scolaire amna amna amna solo manam euh, amna nek na priorité mbass amul mu nek priorité bobu programme bi ya beaucoup de problème premier problème bi ngay am ci programme moy 1 programme doko bind te do tenir compte du contexte comme je t'ai dit premier mot. dernier mot amul fenn fu tout pandémie fu ñu Covid. premier premier problème pour deuxième bi le plan de financement je sais pas ndax nga programme bi def na la sur 2021, 2022, 2023. d'ailleurs ça, c'est sax parce que dafa coïncider avec période électorale dans l'éducation, éducation ñun bëgguñu l'impression joxe que tu y a des jeux politiciens. 2021, 2022 2023, 2021, je mets 10 milliards. 10 milliards pour quand Pour préscolaire, élémentaire, euh, public. 2 mm. millions d'élèves. Si vous avez 10 milliards, vous par 2 millions, vous avez 5 000 francs par élève. Vous avez donc blouse, vous avez des blouses. Vous avez blouse préscolaire, vous avez 3 ans, 4 ans. Vous avez 2 2500 ça pose problème. Donc, c'est ce que parce que, vous eh, avez tenue scolaire, vous savez, dafa nekk loo xam ni ñàkku fi nit ñi dañu sol tenue d'ailleurs c'est même moo tax ñu jàpp sax c'est pas un besoin prioritaire parce que école yi de manière générale trouver nañ ay solutions locales ci tenue scolaire yi préscolaire boo gis dañuy am tenue keroog yaa ngi gis loo a ne de dañ le ñaawlu mooy xale yi doon lakk ay tenue ça montre que tenue existe na donc tenue existe na mën na am ay zone yoo xam ni manqué na peut-être mënoon nañu am benn dispositif pour accompagner ñi nga xam ne am nañ ay mais tenue moom de manière générale wax dëgg c'est suñuy suñu système hmm. trouver une solution et puis trouver nañ solution au niveau local Tenue ñu dañ jàpp tenue question la boo xam ni am na collecte territoire yoo xam ñoom ñooy ñooy ñooy ñawal seen ñooy ñawal nañ nañ wax mairie yi ñu ñawal xale yi dañ koy def am na yoo xam ni comité de gestion moom mooy tout tunem donc véritablement ça c'est un petit c'est un problème déjà il te dit 10 milliards pour 2 millions d'apprenants préscolaires et élémentaire public deuxième année mu ne la léegi à la place de blouse da leen jox ay uniforme mais il reste toujours sur 10 milliards ça pose problème 10 milliards bi doon def blouse. moom nga bëgg maintenir. Ah, pour def uniforme. deuxième année 10 milliards troisième année mu ne aussi 10 milliards mais cette fois ci da ci yokk même ba toujours même 10 milliards donc am na benn 10 milliards bu baaxul. est-ce que hmm. tu comprends ce que je logique donc ça sur le plan de financement ça pose problème deuxième espèce sur le plan de financement mooy nga ne da ngay financer financer pour 3 ans gars yi amoon système boo xam ne mën leen donc tu le dis sur trois ans vous faire le système man mais après trois ans il ma arrêté tenue kan te nit ñi une habitude bi formaliser quand durabilité les parents de et donc ça pose problème Mais vous le contraire c'est-à-dire que heure bi la puisque dispositif bi ne na pas lu bees nekkul lu manqué nan lañ soutenir bu mbir ba en termes de besoin ba nga xam ne am nga benn pourcentage bu am solo boo xam ni trouvé nañ ay solution endogène bay di defar seen tenue ñooñu ngay set nan nga leen di soutenir ñi ko amul nga set lu tax amuñu ko nga am benn dispositif pour les accompagner loolu xel mën na ko nangu mais doo ñëw def def benn croix mel ni tenue mosu fay am ba bëgg créer yow sa tenue yu bees si ñetti at seulement mu nekk 2021 2022 2023 à partir de 2024 nga ne si biir place de financement bi dama lay may programme bi zéro franc après la lay def donc na ko waajur jël donc loolu aussi beneen incohérence la boo xam ni feeñ na ci biir li nga xam ne moom jàngat donc euh, beneen bi mooy euh, soo xool même si biir objectif comme je dis il y a une confusion c'est comme si tenue scolaire mais dafay dafay réduire les inégalités c'est pas vrai dafay ah. cacher les inégalités donc aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes si ci programme bi nga xam ne moom la ñu gis nii euh, ñu jàpp ni évidemment que ñun bëgguñu see sori parce que sori ci moom mooy jubbanti programme bi pour am tenue scolaire or suñu discours taxuñoo jóg ñun waxuñu ci importance tenue ñun li ñuy wax mooy mbas mi daan nañu suñu école répondre aux normes xale yi war nañoo assurer seen santé ak seen sécurité suñu amee suñu dërëm si fan lañ ko war a juble man gis naa ay ay agent wu euh, secteur privé ay hmm. personnel de secteur privé hmm. xëy na bu coow li bëree sax da nga dégg ñu ñoom ñu génn wax man suma ma xolu bopp ak militantisme bi ñu am en tant que SYDEP gis naa ay personnalité privée ñoo ngi may dégg bu dul dëgg danañ ko wax sax day bis may xeex ak ñoom di leen saraxu pour nu ñu mën defee ay levée de fonds pour école bu amul ndox mu am ndox école bu amul gànnuwaay ñom am gànnuwaay ñu ne ma mais monsieur Mbow lolu état moko wara def quoi bu ñu sonal may ak ñom pour am ko donc ça dit que su amé préoccupation bobu te mu ñëw depuis première vague ñëwaat deuxième vague mu nek lu nek lu dëggu ci man bu ñu demee ba gis ni 10 milliards fois 3 existe la évidemment que xel nanguna ñu def discours bobu Cheikh ñu ngi ci jeexital émission mais man damay dellu si ci ben question bu ma préoccupé ñorma moy abri provisoire mais abri provisoire amna budget buñu ñu génne pour changer abri provisoire yi mais lutax tax ba léegi mënuñu def audit bi def évaluation bi xol malay promettre na dana wat na danaa wat xol ci abri fuma ma nepp na fa jaarat mais xaalis boobu anam. mais xaalis bobu euh, communication bi war xam nga Sénégal motax tax bu ñuy wax affaire xaalis damay wax gaay ni dafa am ñent déterminant yu ñu war di xool. da ngay seet xaalis bi ñu ci dugal mais da ngay xool aussi déterminant sensibilité est-ce que dem na fi mu war a dem mooy ñu ko gën a soxla da ngay xool aussi déterminant euh, distribution mooy est-ce que mbir mi beddiwul ñenn xaalis bi nekk seulement petite ah, nekk ci yeneen secteur bàyyi petite enfance nekk ci kaw ba ñu dem ci suuf mais dangay xool aussi déterminant transparence transparence nag am nañ ci problème tey pour nga am ay données financières am ay informations précises si li ñuy def si abri provisoire yi jafe benn ñaar yow bi nga def ce reportage bi ngi lay fàttali de la ñun gëm nañ ni solution abri provisoire Sénégal am en interne mais ni ñu koy amee mooy ñu jaar par li ñu les modèles communautaires école bi nga xam classe bi modèle institutionnel joxe xam nga ñaata lay coûté 6 millions ak 7 millions 500 moo waral mënoo fexe ba éradiquer say abri provisoire or communauté bi am nañ ay ay ay ay ay modèles yoo xam ça coûte entre 1 million 500 ak 2 millions 500 te day nek école yu bax demal Sédhiou demal nga Sédhiou sa d'ailleurs et école yu bax lay don nek ay ay dootu loolu nekkati abri provisoire donc pour ñun déjà solution bi da fay nek ci euh modèle communautaire ñu wara mettre en avant qui coûte moins cher te muy ànd ak ni ni ni ni village bi bindo te dana joxe ay ay résultats yu bax loolu moy ben ñaar ñu japp ni abri provisoire man gëm naa ni dafa wara am ci dëkk bo xamni ni dafa am ay jafé jafé mm-hmm. mais abri provisoire parce que chaque fois que mo am ay xalé yu wara dug mm-hmm. école il faut mu am mais nak abri dafay provisoire. ñun wax nañ gouvernement bi ne ko. il faut ñu xam lan mooy durée de vie provisoire maanaam li ñu tuddee provisoire ñaata at la ñu ñoom ñu tontu ne ñaari at mooy provisoire ñun leen ñun nañ dem sax ba ñetti at c'est-à-dire boo defee benn abri wala communauté bi def fenn abri parce que communauté bi souvent ñooy ñooy tabax abri yi bu ñu defee seen abri mooy besoin bi am na fa pendant ñetti année budgétaire war ngaa mën a planifier pour que abri boobu muté wu. Mm-hmm. nekk classe bu baax nga def feneen abri donc chaque fois dana am abri mais ben abri du durer lu ëpp ñetti at. ba fekk ngay dem ba mën a tabax classe nga bëgg yëpp. donc sur ce plan là nous gëm nañ ni euh, war nañ Maintenant, def ay jéego am solo maintenant question bi nga poser nak question la bu parce qu'il faut une am transparence Il wa que parlement bi député yi war dañu cette question là de façon plus précise pour que lu tax. efficacité bi ñu am par rapport la projection planification bi am ci éradication remplacement abri provisoire pourquoi mu am toujours ay lenteurs ça il faudrait évidemment ñu def ko mais ñun nous gëm nañ ni un abri provisoire dafa war a am durée te durée bi warul trois ans deux gëm nañ aussi que abri provisoire bu ñu un modèle communautaire les tey ressources yi ñu ci am rek doy na sëkk pour mën ko pour mën leen remplacer. ressources yi ñu en interne mën na koo remplacer bu ñu jëlee modèle communautaire mais xam nga nag yenn saa modèle communautaire du arranger ñenn ñi. moo gën a yomb <laughs> mais. duñ mën a lu booy wax linja sa dernier message la lay def ñu ngi ci jeexitu l'émission waaw mooy wax rek waaw dernier message bi mooy di ñaaxaat suñuy élèves ak seen i waajur ñu xam ne njàng beeg njàngale nañ ko gën a fonk gën ko gëm. Hmm. ku bëgg a tekki bunt la boo xam ne nit mën na cee tekkee amee ci xam amee si jikko. Hmm. ñu gën a fonk seen i jàngalekat. parce que comme ni ñu ko doon waxee bu nekkee da nga am euh, taalibe daal dafay tarbiwu sëriñam. Hmm. bàyyi violence yooyu nga xam ne yëpp dund nañ ko at at bi ñu nekk nii. waxit ñu bañ a découragé di jëm di defar wax gouvernement bi aussi ñu dekk ci écoute bu gën a positive am nay acteurs yoo xam ni wax dëgg yàlla ànduñu ak régime contre ñu régime ànduñu ak nit contre ñu nit. Mm. ànduñu ak parti contre ñu parti. donc ñoom man damay wax ni man suma parti politique mooy école. ñu am déglu am écoute bu positif ba bu nit waxee au lieu nga gis ci leneen da nga ciy gën a gis euh, lu positif si nga koy mën a càmbarlee si nga koy mën a càmbarlee beneen bi mooy wax aussi que euh, politiciens yi ñu xaw ñëw may tuuti ci fànnum gestion école man wax naa ko suma yenn xarit Je leen bokk na ci li ma gën a mettre enseignant de l'APR enseignant de Rewmi enseignant de PASTEF enseignant de xomalan élève ay de APR élève de PASTEF élève de ça me fait mal man déggaguma cultivateur de tel parti déggaguma journaliste de tel autre parti déggaguma médecin de tel mm. donc éducation nañ ko épargner ci yenn jeu politique yi parce que même cette histoire de, de, de tenue scolaire, donc, qui sentir un peu une politisation. Donc, nous avons épargner des deux côtés, le gouvernement comme opposition. Parce que l'éducation, il faut avoir un consensus. Mais même si nous avons un changement sur le plan politique, que le consensus est établi, comme nous avons des un consensus, nous continuer une continuité. Mm-hmm. Donc, c'est ce le a On ba jël les hommes qu'il faut à la place qu'il faut bu ñuy fal des wala ñuy jox nit responsabilité ñu teg ko des compétences que école bi ñu épargner ko de tout jeu d'acteurs loolu bu ñu ko defee ëllëgu suba man jàpp naa ne dana dana ëllëgu Sénégal jàpp naa ne dana rafet parce que ëllëgu Sénégal nga baal ma de yaakaaruma ko ci yow ak man ñun li ñu mel mel nañ ko pare. Hmm. ci xale yi lañ ko war a tabax. Hmm. très bien Cheikh Mbow euh, maa ngi lay sant di la gërëm euh, wax ne yaay jiite euh, COSYDEP mooy coalition des organisations synergie pour la défense de l' éducation publique au Sénégal nga ñëwoon tey jii ñuy waxtaanee wàllu njàng mi rawatina coowul. Euh, tenue yi nga xamné état bi mi ngi ko bëgg def euh di len sant di len gërëm di len dig dajé ci seen beneen émission euh, ci autour du micro jërë ngeen jëf.